jërë ngeen jëf yéen ñu toog di ñu bàyyi xel ci euh, Sourcea TV ñu ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay lii gën a fës ci bopp yéenekaay yi dañ koy dooree ak euh, Sourcea daa ñëw xital fësal nax ci euh, xëtam mu njëkk nag Fadel Barro mi jiite nag mouvement bii di jàmmi xew mi ña ngi ko dalal nag démb ca dose matinal bayam ca Sourcea TV nag biral na fa ay kàddu yu bare bare wax na ci cocktail Molotov fii wax na ci ngu Serigne Ngundo Koromak wax na it ci li nga xam ne mooy yoruñu réew mi lépp rek mi ngi ci source jéego ca kanam ak jéem nit jéego euh, ca gannaaw la lañu euh, source a daal di euh, ñëw wax lépp nag mu ngi ci su a waaye nag bés le jour daa ñëw nag fësal ci xëta mu njëkk nag déclaration politique générale bi nga xam ni Ousmane ko war na koo def mais nag Abdou saane moom nag Pastef la bokk nee na déclaration boobu lu am fii ak nag tasuñu assemblée bi lee loolu moom bu yoba mu leex nañ laas yéene kaay moom it daan ñëwaat ci lu jëm ci wàllu di defar li nga xam ne mooy farine boobi lee ak euh, nguur gi mu mel nag pression ba mi ngay wàññeeku bu baax a baax a baax a baax ba tey nag ci las euh, ki nga xam ne mooy guy gi ma ngay dànkaafu euh, Ada Fass nee na ko boo ma songee ma wàcce la mi ngi noonu kon nag noonu bàyyi xel loolee bu baax lépp rek mi ngi ci las yéenekaay l'observateur daal di ñëw it ci loom ci wàllu meññ ak état bi mu mel ni nag waxu biir suuf la bees de prix mu mel ni aussi la nga xam ne moo ca gën a am solo mooy jàmm dana ca am looy daal na nga ko ciy séntu bu baax a baax a baax lu jëm ci wàllu nag sujet yi nga xam ni amul benn priorité nag Ousmane Sonko daa fas yéene dàkkal yooyu yëpp nag fu quotidien moom it daa ñëw ci nga xam ne moo jëm ci wàllu wàññim farine bi la ci réew mi loolee nag euh, ñoom ak état bi mel nag jàmm ma nga cay am bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy le quotidien ne kay moom it daa ñëw ci wàññik ndunduga ba tey mu ne nag jàmm jooju yëpp buñ ko amee nañ ko gërëmee ki nga xam ni mooy béy di añ béy di añ nag moo fa jaar daal di baisse bi euh, mi ngi noonu kon nag nanu baxel loolu euh, bu baax a baax kuy gi moom it ci sunu làmb mi mi ngi ñëw ni euh, ki moom mooy Ama Baldé moo gën a diis fuuf gën a garaaw fuuf Ada Fass kon nag Ada defal nànk rek bin bil nànk rek sinon boo ma songee dinaa la wàcce loolu moom yow nga ba ko xel bu baax a baax boo ma songee dama lay wàccee laa ne ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye le soleil ci xët mu njëkk le soleil moom it dem na foofee ca Sangomar fa ñuy tànqee pétrole ba ngir nag saytul boppam mbir moomi lee mu doon loo xam ni lu am am solo la ba tey nag ci euh, le soleil ki nga xam ne nag moom mooy Aliou moom moo jiitee li nga xam ne moom mooy communication bi la ci réew mi euh, di ministre bi nag daal di biral kàddum foofee ni ndëpp national daal la fas yéenee amal ndëpp national la bëgg ngir nag lépp daal di eh, tegu ci yoon eh, ci eh, presse boobule li gën a fës ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi